xamante ni moom moo toog si bopp LONASE bu Sénégal moom nag mu ngi wuyoo si turu Abdourahmane Doura Baldé moom moomu nag moo topp si njiit bii di Lat Diop moom mi nag daal dinay amal benn cérémonie de remise de voiture yi nga xamante ne rek ñii di jiite LONASE si gox goxaat yi ñoom nag la koy daal di jox moom nag cérémonie boobu le mu ngi ko doon amal

des clés aux différents chefs d'agence qui entrent dans le cadre de la politique de modernisation de notre parc automobile et renforcer également l'ensemble des agences et nouveaux bureaux qu'on a créés récemment à travers le Sénégal pour respecter l'équité territoriale. Et dans ce cadre, nous avons acquis une douzaine de véhicules euh, de marque Toyota Pickup Illus euh, afin de renforcer euh, le déplacement et le déploiement dans, tout le Sénégal. L'équité territoriale également va dans le sens de renforcer ces dites structures, euh, nouvellement créées certaines et d'autres qui sont là et qui doivent changer de, de, de, véhicule. nous avons tenu à faire cette rencontre également pour lancer un message à l'ensemble des bénéficiaires afin qu'ils utilisent ces véhicules dans le cadre strictement professionnel. Nous exigeons cela et nous leur recommandons d'en prendre soin et de faire le nécessaire pour que ces véhicules servent, et je le réitère, aux strictes raisons professionnelles. Pas de politisation, pas d'activité connexe, mais vraiment dans le cadre du travail. Et donc euh, j'engage cela et j'en informe et j'instruis la direction des moyens généraux de suivre cela avec le responsable du parc euh, automobile afin que cela puisse être euh, de mise. Donc c'est ce qui nous réunit ce matin pour une première activité. La seconde, on compte aller avec euh, vous faire une visite de chantier juste à côté dans le cadre de nos activités d'extension liées à une filiale appartenant 100% à la LONAS. Une fois sur place également, on fera le point où on vous reviendra sur les détails concernant cela. waaw di leen de di leen gërëm man Abdourahmane Baldé directeur général l'ONAS Tay. Je suis venu suba si pour euh, avec samay chef d'agence et chef bureau yi euh, pour ñu xool nu ñu leen di joxee ay oto yu ñu jënd pour jagle ko ci liggéey bi ak dooleel leen ci wàllum déplacement bi ñuy am biir Sénégal ci liggéey bi ñu leen sant waaye it di ci profito di leen encourager ci liggéey bi ñuy def ñu xam ne liñ leen jox ci njumtukaay muy oto yi na doon lu ñuy liggéeyee ci wàllum lu ñu leen dënk pas ci leneen donc ma ci sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen encourager ne leen lii nag ci wàllum xoolaat parc automobile bi fi nekk ci politique modernisation boobu lañ nekk nii et lii première phase la bu ci yàlla àndee am na leneen ak leneen liñ ci fas yéene joxe nañu fukk ak ñaar ci ay oto marque Toyota euh, ay pickup. pour dooleel ñi nga xamante ni ñu ci agence yi ak bureau yi nga xamante ni dañ leen di doog créer pour que ñu mën a def seen liggéey ci anam yu gën a euh, ci anam yu gën euh, yu leen di permettre daal ñu dugg fu ne Sénégal euh, yaatu na yaatuwaay bi nga xamante ni tey ñun ñu ngi xeex ci équité territoriale ñu mun a nekk fépp mun a giseek ñëpp mun a jokkalanteek ñëpp donc looloo waral tey ci suba euh, ndaje bi amaat beneen ndaje bi ñu nar a ànd pour visiter ay chantier yi nga xamante ni LONASE tàmbali woon na ko laata may ñëw sax waaye euh, yàlla def na ni ñun ñoo ko nekk di jëmmal pour que mu jëm ci kanam donc dem xool visite boobu nu mu demee parce que LONASE dafa créer li ñuy naan benn filiale bi nga xamante ni mu ngi ci wàllum euh, tabax dëkkuwaay waaye nag dëkkuwaay boobu li ma ciy faral di wax rek waa LONASE laa ci bëgg mu jiitu tey waroo mën a liggéey LONASE ba bàyyi te amoo dëkkuwaay donc loolu bokk na tey ci politique bi nga xamante ni ñun jëgnal nañ ko actuellement pour que nit ñi mën ci bénéficier wu li nga xamante ni buñ fa demee dinañ leen gën a yaatalal lan lañ fa def nuñ koy defee ak li tax ñu jagleel ko ñëpp néew ñu ni waa LONASE kese ci moom dañ koy tijji waaye ñoom ñooy prioritaire di leen sant di leen gërëm ay kii nag di monsieur Dembélé moom nag bokk si ñe kenn si chef d'agence yooyu lee nga xamante ñoom ñoo war a jot seen woto pour rek jëmmal wala sax am mucc bu baax si seen liggéey moom nag mu ngi remercier bu baax ak ki nga xamante ne moom mooy seen njiit di Abdourahmane Baldé waaye rek di ko ne dinañ respecter li nga xamante ne moom mooy jël woto yooyu di ko jëmal lépp si li nga xamante ne mooy doxal liggéey bi moom mooy ñeel rek augmentation ak sax jëmmal kanam li nga xamantene mom moy mooy liggéeyum LONASE. voilà euh, voilà justement donc man le Yara Dembélé euh, chef d'agence bu Kédougou donc dañu ñëw damay ndox dal ci turu chef d'agence yépp dal di remercier bu baax di sant bu baax monsieur le directeur général Abdourahmane balde di wax né vraiment depuis mu mu ñëw depuis mu ñëw dal ñu ngi koy yëg ñu ngi koy sentir bu baax ci suñu liggéey ndaxte. Eh, li nga xamante ni moom la l'agence moom la agence yi gën a soxla li nga xam ni su dee agence bu mel ni agence kii nga xam fa laa jiite nga xam ni agence boo sori la waaye nag dañu ko soxla woon dafa nekkoon mbir mi nga xam ne dañ ko yàggoon na mbëbët da ko yàgg laajte ndaxte moom moo mën a tax ñu mën a waaye tey gis ngeen tey ñëw na régler problème boobu nga xam ne tey bu ñu yeggee dinañu mën a exploiter réseau ba yëpp ba nga xamante ni euh, l' ensemble des 19 communes yi nga xam ne ma nga ca Kédougou dañ fa mën dem dem zone yi nga xam ne ni mooy zone zone minière yi yëpp nañ fa mën dem exploiter kii moo tax dañ koy sant di ko gërëm di wax nag ko yi comme ni mu ko santaanee rek te loolu lañ koy dox ndaxte moom mooy suñu njariñ mooy suñu njariñ ndax ñu téye ko téye bu baax di ko entretenir ne mu waree ba nga xam ni lépp li nga xam ne ni ñun suñu bop soxla nañ koy rek dañ ko mën a am ci comme résultat dinañ ko ci am quoi njeexital bu mooy danañu yokk suñu réseau danañu yokk suñu réseau danañu dem fekk ji clients parce que jamono yi nekk tey jii marketing bi tey jii c'est le marketing agressif donc il faut que on fekk si donc pour ñu mën fekk si il faut que ñu am ay njumtukaay ñu leen fekk tey jii client fu mu nekk ci biir suñu dox ba rek danañ ko mën a fekki ndax jumtukaay bi ñuy yore di dolli encore di sant bu baax di gërëm bu baax monsieur le président Je parle au nom de tous les chefs d'alliance. Attendez, je termine. Donc là, je parle au nom de tous les chefs d'alliance. Euh, dire que, pour, adresser nos remerciements, nos sincères remerciements à M. Abdelrahman Baldé, le directeur général de la LONANZE, Pour vous dire que pour l'agence de par exemple, il vient de régler une très vieille doléance. Donc, vous dire qu'une agence, pour qu'une agence puisse fonctionner normalement, il faut la maîtriser de son environnement. Et pour maîtriser son environnement, il faut être mobile. Et là, vraiment, vient régler, euh, vient de régler tout cela. Et vraiment, monsieur, le, monsieur le directeur général, soyez-en remerciés. Et au nom de tous les chefs d'agence. Vraiment, je vous, nous vous remercions très sincèrement. Et vous dire que depuis votre arrivée, on vous sent. On sent, on le sent vraiment à nos côtés. On sent vraiment qu'il est toujours à nos côtés, qu'il est toujours vraiment là pour euh, régler tous nos problèmes. Et vraiment, je voudrais vraiment remercier tout le monde, remercier vraiment la vous dire que merci. Là, c'est tout à fait logique et normal, et c'est vrai. Ces véhicules seront vraiment, euh, euh, euh, vraiment tenus comme, le, comme la voiture de général, Parce que là, c'est notre outil de travail, donc on a conscience de cela, et vraiment, ces, véhicules, on va les entretenir, on va les entretenir et là, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. On voudrait rassurer le directeur général que euh, on, va, on, suivra les instructions comme il l'a demandé. Et ceci vraiment euh, sans problème. Merci. Et mais là, vraiment, par exemple, moi je donne l'exemple de Kédougou. À Kédougou, par exemple, on a un potentiel. On a, le réseau est très large. Et là, euh, ça va nous permettre d'étendre notre réseau et d'exploiter l'ensemble des, communes qui sont, qui sont, qui, sont, dans nos axes. Et là, je vous disais tantôt que pour un bon fonctionnement, il faut la maîtrise de son environnement. Et pour maîtriser son environnement, il faut être mobile. Il faut qu'on se déplace, aller vers les clients. Et c'est extrêmement important ces véhicules dont nous disposons. Et là, je, dis que le directeur général est venu vraiment à son heure. Parce que nous avions besoin de ça pour, pour résoudre tous les problèmes que nous avions. Donc vraiment, on va faire nos inspections, aller dans le réseau, étendre le réseau et exploiter l'ensemble des actes que nous disposons. Et c'est pour ça vraiment, nous remercions encore une fois

té ñu xamné budget bobu lé mu ngi ëpp 9 milliards ci budget bi nga xamante mom la promoteur bi teg rek ngir ñu amal yooyu les logements waaye rek mu ngi léral que logement yoy ñëpp mën nañ see bénéficier wu waaye rek dañ ci jiital ñi nga xamante ñom ñoy ñooy liggéeyee ñu njëkk sé am ba pare doog jox rek ñeneen ñi. voilà euh, je tiens d'abord à remercier tout un chacun d'entre vous qui est euh, venu pour couvrir cette visite de chantier. Euh, je précise que la LONAS, en ce qui concerne son objet social, n'est pas dans l'immobilier, mais c'est permis avec euh, euh, l'autorisation du Conseil et de la tutelle de mettre en place une société filiale qui s'occupe que de l'immobilier, dirigée par Mme Baguedi présentement. Et c'est un projet que l'administration présidente que j'ai remplacée avait démarré. Et c'est le lieu également de les féliciter, et de les encourager. Parce qu'après analyse, nous avons constaté qu'au euh, Sénégal, il se pourrait qu'un jour ou l'autre, qu'on se dote de réglementations contraignantes en matière de jeu. Et vous savez que la LONAS a une vocation très sociale. Et derrière la vocation sociale, il fallait identifier des leviers pouvant permettre euh, la durabilité et la possibilité de sauvegarder des emplois. Et rien de tel que euh, l'immobilier ne pourrait garantir cela davantage. Et donc c'est pour ça que dans la politique euh, euh, axée sur la vision du chef de l'État, M. Macky Sall, nous avons décidé d'encourager et de développer davantage ce partenariat avec la société Senmar Visa afin de développer des programmes de cette nature. Ce programme sera ouvert naturellement à tous les Sénégalais, mais surtout aux Lonasiens parce qu'il est bon d'être dans une société où lorsque vous travaillez, vous pourriez être accompagné, que vous puissiez être, euh, je dirais, euh, doté de possibilités d'avoir euh, un toit, une maison, avec vraiment des conditions les plus, je dirais, favorables, afin que vous puissiez avoir votre toit. Donc c'est un programme, je dirais, à but social pour faire en sorte que les Sénégalais, et ça c'est une première phase, euh, je réitère les propos, que c'est un projet que nous avons trouvé sur place et que nous allons encourager davantage. Pour sauvegarder les emplois, nous avons besoin, une société nationale comme la LONAS, d'identifier d'autres niches. Et la filiale de la LONAS, qui est euh, euh, dirigée par Mme Baguidi, est en train de s'y atteler. donc nous encourageons ce travail. Nous avons trouvé un excellent travail qui est en train d'être fait. Et je vous garantis que la LONAS n'est même pas à jour avec euh, l'entrepreneur, mais les mesures seront prises incessamment pour l'encourager parce qu'il est en train de partir sur presque fonds propres. Nous devons euh, nous mobiliser davantage afin que ce projet puisse être euh, délivré dans les meilleurs délais. Il a parlé de six mois. Je pense que si on fait des efforts, on sera vraiment très loin euh, d'ici les six mois, en attendant que les immeubles également puissent démarrer et soient loin. Et à regarder le niveau d'exécution, nous sommes très optimistes et nous invitons les Sénégalais à se rapprocher davantage de ce genre de programme où nous allons davantage nous, nous, nous investir dessus pour accompagner des entrepreneurs de, de, de ce qui veulent vraiment travailler et mettre et matérialiser la vision du chef de l'État. quelle est la part de la LONAS en termes financiers dans ce projet-là Alors, comme ils vous ont dit, c'est un projet de 9 milliards 700, euh, mais le montage financier fait que la LONAS n'amène qu'un tiers, c'est-à-dire à peu près 3 milliards, et le reste sera fait par VFA, c'est-à-dire la vente à l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire à, à l'étape où nous sommes, les gens pourront acheter sur plan et le reste du financement sera financé, le reste du projet sera financé avec la vente d'appartements et de villas. C'est ce montage qui a été mis en place. Donc le partenaire a, ramené euh, le, site, qui est un site très stratégique. Si vous avez vu, il y a une extension de la ville. Et ici, c'est un, un, site très stratégique. Les logements sont destinés exclusivement aux Lonasiens ou bien à d'autres euh, particuliers Alors, en termes de droits de péremption, j'ai l'habitude de dire que d'abord les Lonasiens, mais ce sera ouvert à tout le monde. Hmm. À quel taux euh, Non, ça, ce sera déterminé par euh, la société, la filiale qui s'occupe de l'immobilier. Ah, voilà. L'économie du projet, c'est quoi Non, mais en tant que DG, c'est quoi waaw pour ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci euh, gunge bi ngeen di gunge ci visite chantier bi ñuy def ni tey ci résidence Malikia bi nga xamante ni euh, LONASE mu ngi koy liggéey ak euh, société Senmar Visa bi nga xamante ni fekk nañ ko fii laata ñuy ñëw ñun ñi ci suñu administration waaye it LONASE ku ko xam-xam ne daanaka boo leen ñu gisee ci wàllum tabax war na mën a bett mën na nekk mbetteel ci ñenn ñi euh, pour leeral nit ñi rek ne LONASE ci jëmmu boppam deful activité immobilière waaye jagleel na société bi nga xamante ni moom LONASE moo ko créer moom ko ci cent pour cent pour moom mu nekk ci activité immobilière loolu yëpp liñ ci euh, euh, jublu mooy organiser de telle sorte que LONASE lépp lu fay liggéey lépp li nga xamante ni ay acquis la ñu bañ ko ñàkk ci jamono bi ñu toll parce que Sénégal mën naa xëy nekk ci xeexum euh, addiction ci jeu bi loolu wàññi bu baax a baax a baax LONASE li mu naroon am te LONASE nu mu bëree ci liggéeykat war nañu mën a xool fan lañu ñu mën a am yeneen njumtukaay yu mën a garantir waa LONASE seen i liggéey waaye it mën a permettre nit ñi ci li ñuy wax buñ ne la fortune au souscripteur les bénéfices à la nation lu jëm ci lii lañ ciy mën Moi, jublu mooy vocation sociale bu LONASE am mooy gunge ay entrepreneur waaye it jël ay initiative mën a tabax ay villa ak defarlu ay appartement yi nga xamante ni nit ñi mën ko am ci njëg yi nga xamante ni gën te loolu président Macky Sall moko le président de la République ci walum accès au logement mbir mi nag projet bii ngay gis ñun jàpp nañ ni projet bu nar a biñ nar a tijjil sénégalais ñëpp la waaye nag rawati ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey biir LONASE parce que gunge leen ci njëndum projet bi mën naa yomb ci ñun waaye ñun suñu société am nañ ci li ñu li nga xamante ni eh, ñoo ko ci moom donc dina gën a mën a yomb pour gunge ñi nga xamante ni ñu ngi fay liggéey ak en tout cas nous ngi invité sénégalais ñu activité surtout ci luy filiale bi logement logement accessible tamit commercialisation buy permettre à la LONASE euh, investissement garantir emploi yi directeur général de la monsieur Balde, avec euh, ñi mu àndal ñëpp le secrétaire général madame Bagui chef de projet Nous ñu ngi fii chantier les résidences Malikia mu nekk chantier boo xam euh, la société Saint Marvisa ngi ko en partenariat avec la société Lonase ci war fi samp war fi taxawal benn cité résidentielle bu tolloog 33 villas tout standing

ci wàllu liggéeyam ci wàllu euh, euh, soqali askan wi te moom moo jëm ci wàllu lépp lu yëngu ci wàllu immobilier du ñu def nag lu dul am mbégte ndax euh, doomu Sénégal biy liggéey bu toogee ba benn société sénégalaise ñëw ànd ak moom di ci liggéey lépp rek ngir jëmale réew mi kanam dañuy def kon lu dul sante ko yàlla kon DG yaag équipe bi nga àndal yëpp. waaw balaa nga dem liggéey bi fan la toll ak estimation fin projet bi kañ la. waaw liggéey bi ñu ngi woon mën nañu wax ni ci première phase première phase moo doon euh, def déjà bornage assiette bi commencé voir yi mais gros œuvre bi dem nañ ci lu tolloog 30 pour fondation élévation présentement fi ñu toll ñoo ngi ci euh, période coulée premier plancher yi su ko defee am nañu yaakaar ni.

juróom benn weer yi dinañ def remise de clé incha allah